asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ustaas wadd ñoo ngi lay nuyu di laaj sa jàmm ak sa jàmm yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk la ci jàmm yàlla yàlla defal na jàmm ñu dégg jàmm di gis jàmm yal na yàlla jàmmal ñu keroog ci jàmm jafee ku ñu nar a mbugal ba ñu fàtte yàlla yal na la yàlla mbugal ba nga fàtte ñu ah noo ngi rafet lu wax ji nga wax mu jëm ci suñu doom jooju ndax waali bu bonee suñu doom la waali bu baaxee suñu doom la ndax ñoo bàyyi ma maase woon nekk fii muy jàng alxuraan muy tëggi tama ñuy jàng addis muy tëgg ay musique ànd nag ku ñuy wax laay mbuub xam naa ne nag Euh, li ma daan dégg ci kàddoo mu di ko wax buñ ko masaan invité ci rajo ku bëggoon a baax la xaw ma baaxoon na am déet nag waaye ku bëggoon a baax la ndax ku dem ba ne mënumaa dem màkka ndax alali musique demul màkka kon xol ba ba léegi fitratullah i ma nga woon ca moom waali man maa lay wax dëgg man Cheikh laa tudd sant Guèye yow nga tudd waali sant Seck xam naa ne cekkeen nag ngir mënu koo wax dëgg ndax lu ma la wax nga ne toppal fële waaw dégg nga waaye du tee ma wax la dëgg nañu teg kal gi fële te jàkkaarloo ñu waxante dëgg waali ana sa baay waali sa baay dee na waali xam nga sa baay fu mu nekk tey ndax yàlla won na la ne sa baay mu ngi béréb sàngam wala béréb sàngam waali ndax sa baay sànni na la whatsapp wala mu sànni la message wax la ne lii laa ci ne ak laa ak laa waa lii laayeen nga nga sori sa baay xalifa baa ngi may dégg ak i doomam kan moo ci xam tey fan la coon sekk fanaan bii ñoom ñooñu kenn xamu ko ci yow xamuloo ko keneen xamu ko wa sa baay ma nga fanaan ci jëfam ja mu daan jëf bi mu nekkee fii ci àddina waali wàññil sa gàllaaj gi ñu jam la gone gu tuuti nga su bëggee mucc day moytu ak fiir ak ak mbëpp waaye boo xëyoon muuma est-ce deeti nga woy ku la joxu làmmiñ ku dul yàlla ya waali boo xëyoon dof ndax deeti nga woy ku la jox am xel ku dul yàlla waali boo xëyoon AVC mënatoo jóg ci salal boobu nga di fi def li nga def ñu di ko ànd tuur yi est-ce que di nga talatee woy waali tee ngaa wëlbatiku seet ki la joxu làmmiñ jox lay nopp jox lay bët joxlam xel joxlag wir santoon la nga jaamu ko te bañ koo moy waali bu la sa bàyyi waarul keneen du la waar mel na ni mu su nekk fàtte nañ ko ma nga ca la mu nekkoon bi mu fi nekk waali lan moo tax bi sa bàyyi génne àddina jëloo ndënd yi ak misig yi nga woo sa papa cekkeen yépp nag ak borom baat bu sew bi waaw kooku moom sa doomu yaayu papa la waaye bu ko ci santul Seck waaw da woo ko nag woo ma Penda woo ma Demba ak ma Samba Seck ak ma Fatim Seck ba Seckeen yëpp daje nga ñoom Secka ñoom ab Guité ñëpp nga woo leen Seckeen léegi ñëpp bul bàyyi nga defal nga ji nga jiitu gaa topp la nga yóbbu sa baay sa armeel ya kon soo eggee Laayeen dañ lay dàq kon boo demee Laayeen dañ naa laa ah, sëñ Waly nag lii bokkul ci mbir mi fi mu nekk nii nanguwoo mukk nga ànd say moroom nga jël seen dënd yi nga dem ci armée li laayeen nga di ko tëgg ne da ngay siyaare sa papa sëñ Bamba dañ koy siyaare ak yaa sal jalaali yaa muttaali yaa xiirawaali ajib diwaayi dafa nekk ci njub maam li maamu dañ koy siyaare lay lay la la lanu bay lay jox lay la illa la waaw lu tax doo dem ca laa yéen yaag sa dënd yeeg sa xaram yeeg sa tëggukaay yeeg sa crayon yi ak sa baafal yeeg sa jàng ji ngay àndal di fecce ka tëb di dal lu tax doo dem wër sa bambara bàyyi nga tëgg ko siyaar ko est-ce que wàllaa yéen nangu nañu loolu sa niiwu bàyyi lañ mën a recevoir mais sa jëf yi bàyyi ak sa jëf ñoom nanguwuñ ko recevoir ci seen dëkk est-ce que ñi ma ngaa dugg biir Cambérène ak say ndënd di tëgg di fecc bu ñu recevoir sa papa foofu itam jëmmam lañ recevoir mais jikkoom kenn recevoir ko fa jëfam naka noonu ma ne waali soo xëyoon muuma est deeti nga woy waali boo xëyoon dof di lekk ci mbalit yi est deeti nga woy waali soo xëyoon AVC mënoo yëkkati loxo tànk fa nga tëdd nga tëdd fa li ngay dépp lépp nga di ko fa def est-ce que deeti nga woy gone gu tuuti nga jiddoogoo boo amee nijaay na la wax dëgg sa yaay bu bëggee ci yow mucc na la wax dëgg picc su bëggee mucc day moytu fiir ak ak mbëpp picc su bëggee mucc day moytu fiir ak ak mbëpp picc day moytu fiir ak ak mbëpp waa li laayeen fa nga yóbbu sa papa na nga ma laajal xalifa général de laayeen nag mboolem ñi yow laay ku ci xam fu sa baay fanaan biig na la ko wax moom i busa baali mi sa baay daan way mbàkke la sant si tëb maaram moo ki mbokkam yépp ndax xam nañ fu seen fekk fanaan bi xamuñu ko ku la waxul dëgg mi ngi lay jayte yaa ngi ci erreur sa yaay na la wax dëgg xale bu tuuti nga sa baay génn na àddina balaa ki rakk balaa ki mbokk balaa alali àddina bu fekkee ni daa dagan yéen xam su araamee yéen xam ñun loolu suñu yoon nekku ci waaye lépp lu waay jëf moom ngay moom ngay fay ko ëllëg ba sa baay génnee àddina ak léegi nga suur ko àll ne ca ndew waali da ngaa war a dem taxaw ca sa bàmmala baay nga réfléchir baay mi doon wax a ngi nii ñu jël ko mu di jal bàyyoo àll ne ca ndew subhanakallahumma wa bihamdika laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka geesul sa ginnaaw ku la bëgg moo la koy wax wali man ngaa sut sa baay aw fan waaye man ngaa dee balaa suba ci ngoon ki yor sa ruu gi kenn la te ci coobareem la koy doxal ma sàmba munu ci dara ma demba munu ci dara ndegam ña doon takki garaat di tëbeentu di jaay maanaa ñoo xëy ne làcc ne la sa rang ñu leen di le al ay du sàkkantumaa yow Wally Seck mu ndaw mii dañoo toll ci zone de turbulence gone yi tëj leen seen làmmiñ yi te toog seen kër yi xeexu zaahir ak baatin ci lañ toll xeexu ak baatin ci lañ tollu xeexu yàlla ak iblis ci lañ tollu te li ma mën a waat mooy iblis du daan yàlla mukk gis nga bërëb ñay mbote du fa du fa wàlli ndax bu ñu jégee laa ngi bu ñu ko dëggee dina dee yow mboote sax moo la gën a tuuti génneel ci débat yi àddina yeeg coow yi te toog sa kër jàpp sa njàmbur bul def lu ñu la yóbboo gendarmerie bul def lu ñu la yóbboo police koo àndal mu def lu ñu ko yóbboo gendarmerie nga dégager sa responsabilité ci moom li ñu lay jiiñ ku ñuy jiiñ bëti guddi doo secco yeel yi gone ku ñuy jiiñ bëti guddi doo secco yeel yi gone wali na nga laaj sa yaay li ma wax da nee na ku ñuy jiiñ bëti guddi doo sa coyeeli gone li nga nekk yàlla bëggu ko li nga nekk yonent bi bëggu ko li nga nekk sëñ Bamba bëggu ko li nga nekk Sidi Aji Malik bëggu ko li nga nekk Laayeen bëggu ko yaa ngi noonu sooy siyaare gi sa papa yóbbul ndënd yi Cambérène wala nga yóbbu leen Yoff lala fay génnee dooy bale say dàll lu tax bi nga yóbbu sa papa di ko suuli yóbbaale woon dënd yi laayeen laayeen laayeen laayeen yi sa néewu papa lañ mën a recevoir mais li ngay jëf yow mënuñu ko recevoir biir laayeen est-ce que doo réfléchir doo xelaat yow ku la gis rek xam ne boroomum xel nga ku la gis ni rek xam ne waali mii du ab dof mais lan moo tax nga tàggat sa xel mi pour daw ko ci toolu seytaane te toolu mu amal nekk si nga bàyyi ko fi man dama lay laa biiree si eboon na nga yóbbu ma soo ma tëjee yaa ma yónnee añ ak reer du ko lekk sax ndax li nga koy fa nga koy jëlee bëgguma ko mais boo ma ko indilee ca kaso ba ma jox ko ma jox ko prison mais boo ma tëjee yaa ma yóbbul añ ak reer loolu moom maa ko garanteel mais man kott maa lay wax dëgg dëgg guur péng laa lay wax mooy moytul sa bopp nit gënoon na laa siiw talatu ko tey nit dàqoon na la baat talatu ko tey nit amal na ay disque door ay lu nekk tey ji talatu ko tey ana Bob Marley ana Boris Vian ana Otis Redding ana ana Bob Marley ana mu mi ngi ci suuf ana Boris Vian mi ngi ci suuf ana Peter Tosh mi ngi ci suuf ana ana ana ana ana da nga gisati kenn ñoo la gënoon a siiw gën a siiw sa baay ëpp la alal ëpp sa baay alal yàlla jël na seen alal ñeneen jariñoo ko ñu dakkas ko ci suuf te mënoo mënoo siiw ba siiwee ni sa baay mënoo am ba am li sa baay am ndax sa baay bu amut milliard it amoon na nit ñi il faut faire tout doucement sa bàyyi donte ab musicien la bu doon woy itam amoon na Sénégal yi ci jikkoom ci rafet mas ngaa dégg ko sa bàyyi bu gendarmerie jël ay avocat yow kenn kalaamewu la li ngay def ñun muy na xarit ñi ñu la koy wax mais kenn kalaamewu la il faut nga em ci kuddu il ñu rof la ci gayet li nga nekk rek na la doy mais bul ci dugal leneen lu ci bokkul ñëpp nag a ngi la wër ni ñu wëree woon sa baay yowa yowa yowa yowa yowa yowa yowa yowa yaa fi ne yaa ko yor yaa ko ni yaa xew yaa liiki lii an sa baay xewi na keroog biñ koy suul nit ñi daan rëg rëg rëg rëg waali maa fa waroon a mën a nekk ba dend ak yow dama koo mënul ndax sañu ma ko waaye su ma fa nekkoon dend ak yow dama naa la waali xoolal nit ñi li ñu toll ana kan moo mën a taxaw fii ne duñu suul con sekk jógal dellu seen kër con daal di ñibbi kenn mënu ko ci loolu moo la xamal ni ñii dañ doon jay sama papa dañ ko doon jay kese kese keroog boroom dara yu gudd yu yéeg borom mbubb yu jol day yeeg ay ay communicateur traditionnel ak ku nekk di taltali di wax lu nekk ñu di ko wax ku nekk di bëgg a feeñ bis boobu jeex na gars yi seey nañ comme boule de neige gisatoo leen dem nañ seen yoon ku la ci ne salaamaaleykum lu mu am la bëgg jay la ngir tibb ci jal bi rek ñooñu ñëw foofu ñëpp ñu di leen ci ñu di leen wane ci tiktok yeeg kii ñu leen di gis ñu tal tal yi wax li nga yor dong lañ soxla billahi illati la ilaha illa huwa boo xëyoon suba yàlla xañ la alal ba nga nekk ab ndóol amatoo dara mu xañ la sa baat bi mënatoo way nga gàddu sa mbuus di yalwaan ñi ñëw foofu ci seen kër gi di la tagg ka way ñu la séenee ngay ñëw ñu dugg seen kër tëj ko mbaa ñu daw jàdd ko dem seen yoon dañ lay fàtte dañ lay taf comme ni ngeen koy waxee man damay laabiri doomu aadama mais duma ko xeex yàllaay borom jaam ñi kenn ku nekk la nga nekk bu neexoon yàlla nga jóge ca tey bu neexee yàlla sa baay dem àjjana sax nga munu ci dara waaye bu neexee yàlla it kat sa baay dem safaan ba sëñ Bàmba sax munu ci dara kenn ku nekk ci loxool yàlla nga nekk moo yor sa kilifteef moytandikul coow lu bari te mooy tandiku yëg ak wàcc amaa nag boo jëlee say avocat nga contre Jamra na la wóor ne Sénégal yëpp ñu ngi ci ginnaaw Jamra contre yow contre la man ngaa am nag gone yi ndax amuñu kilifa waaye gone gu la ci ne yaa fi nekk ki ci kër baay ak ndey lay ñibbi te li ngeen nekk neexuñu te ñoo leen jur bu fekkente ni jël nga sa pool de avocat na ne am na ñu jël juróom ñaar fukki junni avocat yoo xam ne aras la ñuy fanaani na la wóor ni sa ñaari mbagg yi ñaari malaaka yi ci nekk am na ñu leen moom ñoo xam ne ñoom seeni avocat lañ te ñoom la ñuy layool waali pour nga fay kenn dootu la xam moo gën a yomb naan ataaya nga raaf kenn dootu la gis moo gën a yomb naan ataaya ndax mënoo am gàllaaj te ànd ak seytaane il faut faire doucement ku ngemboo leket day moytu làmbi de teel maa gën a dégg sa baay wala fuuf waaye damaa doonul woy dama ne ku ngemboo leket moo dafa war a moytu lambi detteel yow leket nga gemboo da war a moytu lambi lambi detteel suñu la ba ma xëy sa ngemb dana toj seet sa awra nekk ci biti ñooñu la wër di wax ñëpp luñ bëgg dong lañ am ci lañ bëgg ci yow luñ am dong lañu bëgg ci yow soo dee jëflanteeg waa bitim réew ci njubadi yaa xam sa affaire la soo jëflantewut ak ñoom yaa xam sa affaire la gis nga dammoor wu ub doomu aadama moo gën a yomb damm ñambi bu ndaw mais yërmande yàlla rek moo fi ne régleel balañ laa réglé waaw régleel balañ laa réglé jooju mooy li la war def ko fii bala ngaa dee dem àllaaxira yow yàlla bindu la lettre sànniwu la whatsapp niwu la yaay fit sa bàyyi aw fan waaye xamuloo balaa suba nga deewam déet xamoo di nga fekke déwénam déet waaye soo tëddee di nelawoon xam nga ndax di nga yeewam déet da ngaa jot ci yàlla sa borom rek waaye saa yoo yeewoo jaale sa morom àndandoo ngëlloo ana ndongolo ana ñagambay an sa papa ana lay mbu ana ana kasedes mangone njaay ana mu ana keneen a keneen ni gaa lay jële gaa gaañu baax ñi lay gëñe gaañu safa lay jëlee gaañu gaa yi safaanoo ak mbaax doomu aadama nag defe na ne mbaax mooy am alal di ko joxe dëgg la mbaax bokk na ci am alal ju lew jële ko fu lew te di ko def fu lew loolu mbaax ci la bokk mbaax bokk na ci am alal ju lew jële ko fu lew te di ko def fu lew waaw mbaax bokk na ci am fiw amin dagane def ko fi def dagane loolu ci mbaax la bokk waaye nag mooy premier mooy deuxième position yàlla dafa wax ne laysal birru anta wëlloo wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakinna al-birra man amana billahi gëm yàlla moo njëkk leneen door caa topp waaye gëm yàlla du jébbalu am ab sëriñ te nekk ci la neex waaye li gëm yàlla du nekk ay sabar tiim la di tëgg nga naan maay saxaraay ma faal ak maay jéeg maay sang beeg maay nii ki nii waaye boo boo moytuwul mooy tuwul mag magi murit yii da ngay xëy fay te man maa la ko wax dangay ngay fay da ngay fay laa la wax xamaj ñu làmp teng-teng kenn dootu la limaale ndax la woon woon ni na ña fi nekkoon newatuñ fii te ba tey am na ñu fi ne ña daan muñ ak a jéggale ak a baale jóge nañ fii réfléchiral nga xool li xew rek ci jamono fi ne nii gaa yi kuy kuy li yëpp dañ leen di damm par benn damm rek talit nga dem bàmmel talit nga talaaj ba ba ba ba ñuy régler ndax buñ amee ay buñ amee ay bomb atomique yi tamit am nañu yore ay lu raw bombe atomique te ñu ngi ci réew mi bu ma sañoon nag nga dund sa dund gi ba màgget ndax yàlla wëlbati la ci li nga nekk ndax yow boo wëlbati ko yóbbaale ñu bëri ndax star boo gis rek bu tuubee bàyyi lu bon lay yóbbaale ñu bëri ñu ngi lay invité ci lislaam ñoo ngi lay invité Touba waxuma ne invitation nga dem si yaara ji jox la audience de man mënuma fa am audience man mii di wax ak yow yi man mënuma am audience Touba aw ma dara ñuy dem Touba dinaa jox gi gàddigaal ñëw ne mënuma tax aw may ndënd te du ma tëgg du ma ñoom ñoo war a seet ñoom ñooñu ñoom ñoom waa Touba ñooñu ñi lay recevoir ak di la màggal ak kaw ñoom ci lan lañ nekk seblaat mbàkkee dama koy wax dëgg mu leer seblaat mbàkkee jaga mbay seeti woon na ko ànd ak gaayam ñu di ko présenté naa ko kii mooy njege mbay moo woy ñetti abdu yi abdoulaye yi abdoulaye ak abdou xaadir jilaani seblaat dëgg ma yeggal mu ne ah ñaari de wóoruma waaye mel ni moom tooñ ko ko man ñii de waroo ma woon boole ci ñi ngay lim loolu seen plan waxoon daga mbay ñaar ña de wóoruñu ma waaye man mii di wax ak yow de tooñ nga ma ndax ba ngay lim say ab waroo ma ci woon a boole ab sëriñ dëgg noonu lay mel ab sëriñ dëgg day wax dëgg te yàlla tax waaye nit ñu tekkiwul dara buñ dikkee ngeen di leen recevoir ak kopp koppal ak korkoral ngeen nekk defe ne yéen a ci dara nekkuleen ci dara ña nekkoon ci dara dem nañ seen yoon ña nekkoon ci dara amoon nañ fulla fay ju toll ni ma ne xoolal ngintal gaynde aw bëy du fa du fa permanent aw bëy du fa ndax kon ñu boole ko ca tudduma sëriñ su baax sa bëggoon lu baax saxoon ci lu baax ñi ma dëgg di ko wax te ragaluñ ci kenn nekkatuñ fii ñi fi de buñ baaxeet ci maslaa la ñu nekk yàlla nag laa yaxta yi anil xaq ku fi taxawal yàlla yoral jikkoom yàlla rusta wax dëgg waaye dama ne seet leen yàlla ci li ngeen nekk yéen kilifay diine yi seet leen yàlla ci li ngeen nekk kaw kawal gi ngeen di kaw kawal gone yi dong moo tax ni ñu mel ñu mel ko yow sëriñ bu jigéen bi su fekkente ni bu Oustaz Wade ñëwee sa kër du la gis ak yow ko de péti ñaa la nga ko yàlla yow kay nga xam dëgg ci diine ji wow ju dëgër moom waaw sëriñ bu jigéen bi bu Wally Seck dikkee nga dugal ko sa kër yow kay wutal ab wutal wutal Charleston bu baax te bu Wally wootee tee nga dem ca ndakk sama ndax fi mu toog nga toog yaa ngi fekk ci sa xol te yëguloo ko man gisoon naa sama doomu sëriñ bu jigéen doomu sëriñ sax mbàkke gay defaat ma daaw jégle daaw jégle woon ba tey gisaguma ko nag ci jëmm waaw boo ko gisee it damay sëgg damay sëgg ne pat rek muy sëgg ne pat te mu xam ne wax naa ko dëgg guddu waaw ma gis sama doomu sëriñ sëriñ sax mbàkke di jigéen mu njumbalu nag ba jolte mosal gi te li ma gën a naqari nag mu ngi niroog ci bi ak jëmm ji keroog bi ma ko gisee damaa daanu gàngri mu dem nag Fatick yéen invité ko mu ne dajje nag dag mosul bu jol te gi naan yaa anti yaa ngi moyal soo ko mu des da nga ma ma ne daa xaw la wala xaw la suñ sax mbàkkee ci biir suuf doom ji jigéen ca baal ba xam naa ne xaw ma fu mu nekk waaye ma ngay diir ndekke paara moom muus dafa naan ñax bu la ne jàkk nga ne ko jàkk rek nga fàtte li nga doonoon du la sax waar bu la xoolee rek fàtte nga loo nekkee boo dikkee bu la ne jàkk dootu dootu nekk ci yow caractère gi doomu mooy moo lay effacé mu dem ba génn àddina seytaane di fexe di fexe ba jaare ko ci ndaw soosu xaw ma faatu giwél la xaw ma faatu bambara xaw ma nu mu tudd mu lugat doomi sin sax mbàkke genn faat ma ba yóbbu ko ca yóbbu ko ca dancine ba ba noppi rek mu ne daj jëkki dara ñu di ko ñu di ko tagg yow moom la ñuy dox rek ba accidentellement la ñuy daje mais du ma la siyaar ba ba ngay dee mbaa ma dee kooku mu amu ci benn maslaa du ma la siyaar ba ba may dee mbaa nga dee te bis bu ñu jàkkaarloo wéet nga xam ne ko ku may duma nekku ci mbooloo sama sama samay daal du ko du ko fekk waaye bu muy toll ak yow dinaa la wax dëgg ne la li nga def tegu ko ci yoon te maa ngi la koy wax di ko dégg te tam gay def du dem ci baala ci danse waxantuma ñu di ko invité mu ne daj ñu di ko way mu defe ne moo ci ne loolu ngeen di def dong moo tax gaa yi kuy kuylu gi ñuy kuy kuylu ñu di ko def bu ngeen leen sànniwoon ca xaj woon leen ne tekkiwu leen dara ñu soppi seen jikko waaye da ngeen di bañ ku baax di bëgg ko bon di daaneel ko ragal yàlla di yëkkati ko ñi ma yàlla na ngeen tëdd ci seen lal yi géganoo seen ngeganaay yi ngeen peese seen bopp yéen ak seen bàmba fa ngeen tolloo fu mu toll bu la yàlla mayee sens da koy xam kenn ku nekk noonu ne siw sëñ bamba di sa maam yéen ñi sëñ bamba di seen maam du ngeen respecté seen bopp waaye respecté leen seen bopp waaye maa wax leen ko man mii seen taalibe maa leen ko wax dëgg ndax bu moo leen ko waxul keneen dana leen ko wax waaye li wérte mooy bu ngeen bawul musiciens yi ngeen di kaw kaw la ko koppa koppal di leen dugal ci ay ruxa ak di leen télévisé ki ñuy kuuy kuulu ko bawul ba fekk seen maam di ngeen xam ne ba góor a koy bay sëñ Bamba jur la mbaamu jur sa baay taxul a doon buur ba lu neex nga def ko waykat yi sax bu ñuy dem France di way dañuy ñëw siyaare benn sëriñ ñoo na leen ñëw na leen ci écran bi ñu sànni ko ci ci ci YouTube bi loolu dawuñu li ñu ko defee rek mooy ña ngay mbaal murit ya ca France ña ngay mbaal murit ya ca Belgique ña ngay mbaal murit ya ca Allemagne ña ngay mbaal murit ya ca Italie diw di cawaalisi ki dem naa ko mu tox sox na diw ah waaw waaw waaw foo la jëkki dugg roplaan ut si France waaw ay cawali te nañ ko dem seetaan na li ndax gisoon naa ko ca sama doomu sëriñ ay mbaal la ñuy rabb di sànni rek yéen ñi nangoo doon meb gi nag ñu di leen mbaale taalibe yi da ngeen ci sax ba dee feeg yéen a ngi recevoir woykat yi seen ndongo yi di dem baal feeg yéen a ngi recevoir woykat yi laa ne seen ndongo yi dañuy dem baal mënu leen ci dara te yow mal xiyaam fu ñu dumaa ndongo yi duma leen ba ngeen daldi nga reet ne ndongo yi ndax yéen a leen may bunt ndax nit ku bon kenn du ko recevoir ci sa bopp soo ko recevoir ci sa bopp kala topp ngir mbaax danaan lii bu bonoon sëñ bi di ko def bàyyi leen ñu bon ñi ñu ànd ak ñu bon ña te ngeen ànd ak ñu baax ñi te doyloo yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu